tey la élèves yi def CM2 door l'examen CFEE ak entrée en sixième fii ci centre Kalidou Sy bu Grand Yoff lépp jaar na yoon ba xale yi commencé seen épreuve yi bu ñu sukkandikoo ci adjoint chef centre bi. ñu ngi ko door si jàmm élèves yi ñëw nañ ci heure surveillant yi ñëw nañ ci heure liggéey bi tàmbalee na ci huit heures. yàlla amul benn problème daal lépp jaar na yoon daal pour l'instant lépp yemb. ñaari téeméer yu teg juróomi candidat ñoo jot a bindu ci centre bi waaye benn élève dong moo ci absenté loolee chef de centre bi di Idrissa Sané di koy xamle. am nañu deux cent cinq candidats yi kenn moo si absenté garçon voilà sinon dañu commencé huit heures commencé par langue et communication. examen CFEE bi daal dina tàmbali tey ci àllarba nar a jeex suba fii ci centre Kalidou Sy bokk ci yeefu Parcelles Assainies ñu daal di amale yile l'examen lépp daal dinay jaar yoon bu ñu sukkandikoo ci ñu jiite centre bi te nemeeku wuñu ci benn rëkk-rëkk.